Bienvenue sur votre site d'information Tivactu TV la jàng ak euh, xam ngeen ne euh, le 2 incha allah dañu bëgg xale yi ak enseignants yi commencé waat euh, jàng si biir école yi xale yi nag toog nañu ab ab diir te jànguñu te xam ngeen ne mu ñu jékki-jékki rek dem école ci contexte bi nga xamante ne moom la moom la ñëpp xam moo tax dañu doon expliquer loolu. wax leen aussi mesure nga xamante ne moom la ñu jël mesure pédagogique yi mais mesure sanitaire yi nga xam ne dina tax xale yi jàng ci ay conditions yu baax ci euh, biir salle bi gis ngeen fi ay médecin chef gis ngeen ci euh, personnel de santé mais gis ngeen fi aussi euh, personnel ñi nga xam ne dañuy assurer la sécurité des écoles mooy service d'hygiène ak ñeneen ak ñeneen donc ñoo ñëpp dañuy lëkkaloo pour que le deux incha allah conditions yi nga xamante ne moom la suñu kilifa yi tëral ñu mën ko wéyal pour que xale yi mën a jàng si ay conditions yu baax. Euh, autorités locales yi dinañ ci jàpp ba mu yem. waaw autorités locales yi aussi euh, ñoom xam nga population lay fi nekkal te école dafa dem loo xamante ne euh, askan bi yëpp moom moo ko moom donc état dafa am effort yi mu def pour jox xale yi matériel naa mooy ay saabu ay gel. ay thermoflash waaye dañoo laaj aussi collectivités territoriales yi ñu jàpp ci mbir mi ndaxte ñoom dañu fi toog loo population ku nekk aussi am na benn contribution bu ñuy xaar ci yow nga xam ne bu état bi àndee yow aussi nga andi loolu lépp dañ koy jox xale yi jox ko enseignants yi pour que vraiment li ñu bëgg ci ñoom mooy jàng bi mën a jaar yoon jàng boobu aussi ñu mën ko teg ci ay chartes yu baax ñu mën ko teg ci ci ci ci ci conditions yu baax conditions sanitaires yu baax ndaxte. doo jàngale rek waaye da ngay bàyyi xel maladie bi te loolu aussi ñoom xam nañ ko expliquer nañ leen ko te ñoom aussi jël nañu fi ay ay engagement yaakaar naa ne engagement yooyu daañ ko wéyal incha allah. distanciation sociale beeg yooyu euh, ñaata ñooy war a nekk ci classe bi. waaw léegi xam nga euh, fi ñu toll nii dañoo changé mbir mi classe nga xamante ni daan daan daan ëpp juróom fukki élèves léegi euh, vingt élèves rek lañu ñu am autorisation mooy ñaar fukki élèves. Euh, classe bu nekk dañ koy dañ koy dagg classe bu nekk dafa war am ñaar fukki élève nga xam ne école bi yëpp sax ma nañ ko jël l'essentiel mooy ku nekk classe bu nekk nga am ñaar fukki élève ak benn enseignant moo tax aussi dama si dama si profité waale euh, wax ne du ay enseignants yi daan jàngale si classe d'examen rek ñoom la concerné enseignants yi ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi woon si école yi ñoom ñoo war a ñëw si école bi directeur d'école bi. ak chef d'établissement bi ñoom ñoo mën a xool na naka na lu ñuy def ba enseignant yëpp ñu man leen jox ay liggéey ci biir école bi ñii mën nañ jàngale ñii def leneen ñii surveiller xale yi bu ñu génnee récréation ñii yore ay ay di xool température xale yi nga xam ne ñaanuñu ko yàlla bu fekkee ne am na am na cas ñu teel ko signaler euh, waa kër docteur ñu mën ko ñu mën ko toppatoo. daa vraiment loolu daal la ñu bëgg d'ici le deux incha allah. Euh, gis nañ tamit xale yu bari yoo xamante ni jamono yi nekkuñu fi ak contexte bi ñu nekk état d'urgence est-ce a ngi yi nga xamante ni bu ñuy waaw boo seetloo boo seetloo fan yëpp ministère de euh, de de moom ak naataangoom bu bu transport ñu ngi liggéey si mbir moom nga xam ne élèves yi dañoo nekkoon si vacances waaye enseignants yi aussi dañoo nekkoon si vacances donc ñooñu euh, naka la ñuy def bu pour que xale yi. ak enseignants yi mën a delluwaat si école yi ñoom ñu ngi si euh, waxtaan euh, ba yaakaar naa ne fii ak fan yu néew dina am ay ay ay ay arrêté yu génne pour que ñoo ñu ñu mën leen di indi dans de bonnes conditions loolu daal vraiment amuñu si benn. benn mais ñi doon jaay ñi nga xam ne dañ doon jaay bi moom dañ koo tere ak jaay bu mu mënti doon nag dañ koo tere si école yi parce que yëf yi du question xale ñëwal nga jàng rek. mais dañu bëgg boo ñëwee aussi nga jàng dañu war a assurer euh, fi nga nekk nga bañ am ay tolof tolof si wàllu kër docteur moo tax li ñuy jaay yëpp dañu koo tere dañu koo tere te gis ngeen ne si salle bi amoon na fi ay force de amoon na fi chef euh, hygiène mu nga fi woon ak ñeneen gi ñeneen ñooñu nag ñoom ñoo ñuy jàppale pour que liggéey bi ñu mën ko wéyal ñu mën ko def comme ni ko suñu kilifa yi bëggee te incha allah noonu lay demee ñoom aussi jël nañu engagement. Euh, dañuy waxtaan ak population bi ñu wax leen ne lan moo tax ñu ñu tere loolu parce que du ñëw rek vraiment tere ko dañuy waxtaan ak nit ñi wax leen ne lii ak lii ak lii moom moo tax ñu tere ko ñoom aussi mën nañu comprendre que bi moo waral loolu bu jamono changé nag mën nañu ñëwaat si si comme ni ñu daan def avant. école privée yi ak euh, centre de formation yi est-ce que ñoom aussi mesure bi dina leen laal. waaw xam nga bu ñuy wax njàng ak njàngale waxatuñu école privée ak école publique. parce que xale yi fu ne la nekk am na xale yu nekk ci public bi am na ñu nekk ci privé bi donc ñëpp la ñu concerné am na ñoo xamante ne aussi dañoo tànn dem ci école formation technique ñooñu aussi képp ko nga xamante ne da ngay def examen ren euh, nga nekk ci public nga nekk ci privé nga nekk ci enseignement technique ñooñu ñëpp la ñuy concerné te incha allah euh, ñoom ñëpp dañ leen jox euh, jumtukaay yoo xamante ni dañuy nekk en sécurité et dañuy jàng comme ni ñu ko bëggee pour que en fin de compte ñu mën a def ay seen examen. mais li ministre doon yi waaw loolu xam nga loolu moom day wëy parce que boo ko boo ko xoolee si si télévision yeeg ak ak ak ak réseaux sociaux yi ñu ngi jàllale foofu ay programme euh, ay ay leçons pour que xale yi nga xam ne euh, pour l'instant ñu ngi si kër yi ñooñu ñu continuer ñu continuer di jàng. Euh, xëy na bu ñu demee nag ba si kanam ñun aussi mën nañu dellu si si école yi moo tax dañ leen ñaan rek ñu continuer si si mbir mi di leen jàngal si seen i kër yi en attendant que situation bi évolue te boobaa ñun aussi am nañu si école yi. ñu jëm aussi école yi laaj nga ñu jëm si école yi balaa xale yi fay dem waaw waaw sànq ñu ngi doon waxtaan ak service di d'hygiène pour ñu raxas école yi. école yëpp dañ leen di raxas dañ leen di euh, toppatoo ba nga xamante ne bu xale yi ñëwee dinañ fekk école yëpp set école yëpp euh, ñu toppatoo leen nga xam ne dañuy ñu recommencer jàng euh, dégg ngeen monsieur le préfet joxe na fi ay ay mesures nga xam ne suba incha allah collectivité territoriale yi daañu jàppale service d'hygiène pour que fépp fu ñu mën a jaare écoles yi département yi ñu man koo toppatoo ba nga xamante ne vraiment ñëw si école bi du doon benn jafe-jafe ndaxte école aussi toog na ñaari ñaari weer xale yi jànguñu donc école yi actuellement dañoo dañoo xaw a dañoo xaw tilim mais incha allah fii ak euh, ay fan yu néew euh, service d'hygiène jël na engagement dugg si école yi désinfecté ko raxas ko toilettes yi def si def si ndox ba nga xamante ne vraiment xale bu ñu ñëwee ëllëg duñu am benn jafe-jafe pour jàll.